muhammadul war def xare mu ni day day dafa tiit sàkk ci ay téeméer téeméer den yonte bi ne ko bëggatuma sa dara yàlla bëggatu sa dara yonte bi génn àdduna Abubakar toog xalifa laaj ñëpp impôt yu ñëw mu daal di wa Seydina Omar ne ko aqimo salaata joo gis ci alxuraan waatoo saakaata ci taw saala batam ñii daal ëpp ñu doole nan dal ci kawam Amar ni ko lu yàlla gedd rasulaay gedd ko loo koy doy dex na maa koy fàtte waaw kay ma xam ko jamal boobu moom mii moom moom lañ ko doon defal ca lañ ko faate sax foofu yàlla ngi wax ca alxuraan mi gaa yi nga xam ne si jamaaha maalan wa hadada moom moomu lay wax ak ñi mel ni moom waa kay moom it ma maanaam dafa am ci gaa yi ñoo xam ni nen woon gëm nañ yàlla waaye dañoo mujj def yàlla ab noonu def yonente ab noonu pour lan alali àdduna te xeebunu dara wutkatu alal moomet na yor million nga yor dërëm bañ ta sàcc sa dërëm boo leeg million am moo si jamaa maa doon waxaat da ay yaxsibu annamaa lahu yàlla nee na la yun fil xutama maa ngi leen xaar ëllëg sawar bu ñu xutama laa di yóbbu sawar boobu xutama la tudd tax tàngoor wa ak melokan ba boo fa ñëwee sa xaalis du yow lañuy fop tabal ci bir sawara bi alal ji lañuy fop fam nga gaay teug tëgg yek jasi yek yeeg waaw xam nga ni ngay fobee li ngay teug tek ko ci kaw tal ba mu xonk manam alal ji dañ koy dañ koy def ay pièces di jël par ben tëral da nga yaramu nen di tek par deureum waaw kay bu ko tege ba noppi dis nga municipal yi ni muy def fob sali bu teg ci mag a suuree weñ gi ak geneen weñ gi la muy def ca diggante ba yow sa diggante ak sa dërëm yi noonu lañ leen suuree kallaa la yun basana fil xotama wa ma adraka mal mooy naaru laahi boo xam ne mu xaadatu lati al afida maanaam xoli doomu aadama yi xam xol dafa nooy moom lañuy rukk ba mu nooy moom lañuy jiital ko sa warawee alal yi nga xam ne dañoo bañ wala ñuy sàcc alal foofu lañu jëm ba léegi xal laka animal yi wax nga dëgg bari na ci koo xam ne alal ma ko alal moo tax alal jaamoo ko yàlla bu dee ku baax alal dafa baax ci ku baax ndax da koy jaamoo yàlla waaye bu dee ku bon alal dafa bon ci moom ndax da ko yóbbu sawara da ko yóbbu sawara defe naa ci wal hadiyaat la wax ni ni ñuy lekke wa na waa kay wa taakuluuna turaasa aklan laman wa tuhibbuuna al maala hubban jamaa waa kay maanaam seen tiyaande egg na ci teereeb jàmbur xeebunu ko feek jaayunu ko lekk xaalis bi duñ bàyyi borom dañ ni courtier la ñuy doon nag waaye waxtu wane kayit gaa ngi tiyaande baa ngi musiba am na xébunu yémunu xébunu yémunu amul benn obsé bu kenn di jaay bu dul dugal seen loxo pour jaayal ko te bu nu bis bu ko jekkoo ñàkk nga sëñ bi monsieur bala ñëw nañ ci yàlla musal rapidement gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw hmm? wa taakuluna al mala hubban jama kalla si tit tit isa du ko ar dakar wa arab wa malaku safan wa nga xamni ci yoon ci waaw bi jahannama sawara jahannama rek musiba la kon yeen ñi bu len alal gënal seen jëm alal da ngeen koy jariño waye bu len alal jariño yeen hein souf si bu mu len gënal seen bop yeen ko mom da ngeen koy jariñoo waaye bu leen suuf jariñoo ak warukaay yi fi ne mooy oto yi yëpp teraangay nit la yàlla moo leen bindal alxayla wal bixaala wala hamira pour lan li tarkabuha teraanga nit la 4x4 yii ah avion yi sato yi yére yi rafet teraanga nit la nit da koy jël jariñoo ko mais bu la loolu jariñoo yow té amna ko xamni mom ni ko lolo ko jëriñoo mom parce que day tiidaande ba mu doyal te ko jëriñ dara mom du la ni fi la ko sa ci biir nafiq du liggé ba nopi gal nañ ko né mu ne mun la ko def parce que barké du ca ne bàkkaar a ni xam nga barké fumu mu toxoo fa kon ma ngi leen di wax yeen taalibi seigne touba yi yeen julit yi yeen umatu rasul alayhi salaatu ñi may dégg bitim rew ak ñi nek fi na leen yàlla gënal àdduna na leen seen alaaxira gënal seen àdduna na leen seen àjjana gënal dem sawara na leen seen mbokk jullit gënal alali àdduna ji seen mbokk bi gënal leen ko kañ laa waxoon fii ni ñun ñii lu ci waay soxla ci noonu ku ko ci xam ci noonu bul nekk courtier entre diggante ka ko soxla ak ka waxoon naa ko depuis yow so soxla lu jar témèr ma xam ko naa dem jëndal la ko ci témèr maanaam relation xol bu neex bi ne suñu diggante nga xam ne Mohamed Diop waxe ba ma am ko te waruma après man bu ma la yëgee ba noppi nan lay def ak yow loolu loo nekkate ma ne ca waaye ma bëgg luy jar 500 francs nga jaay ma ko 1000 francs war ma su ma ko xamee rek bañ naa la yow yaa créé sa noonu bopp ah yaakaar sa noonu bopp taalibe day fexe fexe moroom taalibeem jàpp ci dara waaye fexe lu sa moroom taalibe jàpp nga fexe koo jëlee ci loxoom yaa foqule ah ñun buñ dimbalantee dem ñun ñi yàlla xam na loolu jawriñ mi day toog toujours di wax ne nañ def naan def ay projet na ñëpp dem wuti mécc na ñëpp wuti nangam ku mu dara mu jàppale ci nangam Mohamed sa moromu taalibe rafle nga wodd ko mu ñàkk nga may ko waaye fesee lu mu yor nga nangu ko ah musiba la maanaam nit ku baax day créer nit xam nga dañu daan wax benn président bu fi nekkoon ñi moom day créer ay milliardaire muy waa ji jiitu Macky sàll mais loolu mooy nit fexe ba defar nit jëmmam yiw boo dee nitu yàlla li la ci yàllay fay fexe ba defar nit mu am lu mu jàpp li la ci yàllay fay mais fexe ba yàq nit mu fas yéene di la ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla musal ci loolu ndeysaan barki démb xaw ma maa ngi yow dañu am fu ñu ànd ak sëñ Xaadim mi benn jëm boo xam ne jullit la waaye du murit dañu toog di waxtaan mu may laaj kenn ci ci mbokki taalibe yi fu mu ne foofu man mun war yi ma war waa diw sama xaalis fu ko def yooyu war yu rëy ci koo xam ne mën na laa jariñ lu ne am ci yow confiance totalement nga yàq confiance ba wóolootul kenn yooyu ëpp naa def ci yéen ñii ëpp naa def ñun nañ dimbalante ngir yàlla nañ jàppalante ngir yàlla nañ suturalante ngir yàlla te bu ñu bu ñu rey bu ñu lorante mukk bu ñu lorante mukk lu ci waaye tane morom mën na ko dimbali ci xalaat ci moyen ak lu mën a doon waaye waaye waaye fekk kenn nga jekkili ko ba noppi ne xujji bët toog jàkkaarloo moom saa yu ngeen toogee ci daayira bi mooy nan xam nga lu yées fexe ba sa kilifa ku am ku ne mu rëcc ko la la signal yi waxoon maam Bousso sama wajur bu jigéen la ko waxoon ne ko soxna Bousso mu ne mu ne ko man ab rëbbu laa waaye ab rëbbu ku koy dimbali sëñ ji bi signal yi ko laa yor question boobu kan mooy dimbali rëbbu comme respect bi ñu joxoon sëñ bi ak xër gi bu ñu wax ak ñoom dañuy aal ba duñu ko xam ñu ko kan laajaat nañ la ko mu ne ko ki koy téyelee waaye su dee rab bu ma fital ba jàpp ko bu ma la ko joxee bala maa ñu fekk nga nga nga kereyeel ko ba rab bu rëcc nga xam ne sëñ bi day wër ba ngoon jot mu ñëw di xam ne jàpp na rek ñëw xe comme laaj nga ne ko diw de bana la lu ko tax ma bala mu ni diw a tax sa digganteeg moom diw a yàq sa digganteeg diw maanaam yàqkatu diggante ku sëñ bi am tamu baax teg nga ci kawam lu tax mu ba sëñ bi na ko tiriyaande billaahi musiba la waa aka neexoon nga fexe ba ñooñu di ñëw baax gu ñu am nga am ca waaye fexe ba ku ku fi baax nga yàqal ko ba mu ba mu wane ginnaaw soxna Xadija defu noonu lool de da daan génne da daan génne téeméeri dërëm ak ñaar fukk juróom benn fukk yi ñi gëm rasulullaay lay neexal pour ñu gën koo bëgg juróom benn fukk yi ñi ko bañ lay neexal pour ñu bëgg ko Abubakar def ko Sadiq defu ko Seydina Ousmane defu ko Seydina Omar defu ko Seydina Ali defu ko maam a Rafal mii gaa yi baax yi sëñ Tuubaa yii dañuy dili ci biti di andi waaye duñ fekk li sëñ bi yow ñu koy rëccal bilaay du la jariñ dara ah ku yokkul yaa wàññi kon maa ngi leen di wax yéen ñëpp na ngeen wut ay buumi yeewukat buumu yeewukaay mbokk taalibe mu ngeen gis taral leen ko ni bàyyi seex di wax léegi ci yaay faal mii neex na ma biig rek xaw barki biig laay wax suñu xaati mii ne ko nañ ko yóbbu ci bàyyi taale boole koog moom maa ngi la koy wax kële laa lay booleel dégg waa des na tuuti dootoo ñëw ci man ndax moom yooyu sax suñu secret bopp la waaye ndimbali ci kër gi yëpp ci kële kee moo ko waaw ndax man dama bëgg bu ma jëfee ngir yàlla yooyu ñu moom mi moom moo leen xam man man fi na am ñoo xam ne leen. ku am problème ñëw fii jàmbar ko ñaari yoon damay ndax demal ca moom mu bind la. bu bu bu bu xiw lu jotee bul ñëw sama kër. teggil tomb ma dem ca moom boo fa jógee jaaral noonu nga dem bàyyi ma ak yàlla. dégg nga démb laa doon bàyyi ji li mi ni ko nañ ko woon bàyyi taal mu dem ci moom gise gu bari gi mën naa ci gis sama bopp te duma ci dara waaye bu la yàlla day jariñ te gisoo ma yàlla ngay sant ah waaw bu ko dee man lu ma suñu borom di defal ma defal ma ko kon kii mooy imaam xaw ma xam nga ko mu déet weer wi paase na waaye bu ñu ko jàllee ba ba dugg ko foofu ngay dem booy da nga ciy noppalu ndax kanamu jox ma bu yàggee day am kersa waaye bu la yàlla dee jox du am kersa man ndax eh, wax na ko bàyyi sax nii dama sëñ bi damay bañ nga rus ma kon boo dee jaaree ni ma teggi doo ma rus ndax yàlla la jële fuuta andi la fi ñu bari nekk fii nga daw jëm kër sëñ bi sëñ mënta def lu lu màjjali rek jox la yow wax naa ko moom mii dama ne ko jigéen la te du mag te coono mën naa andi ci nit lu nekk te bëgg moom dugg ci lu neexul yàlla kon nañ ko taxaw loolu laa ko wax mi ngi nii waaw mhm. Mhm. ñoo daan jaay si gerte gi fii waaw mhm. maa ngi koy fàttaliku wax nga dëgg maa ngi fàttaliku moom ak ka doon jaay këriñ ka waaw kooku léegi moom bu ma ci baytaala waaw waaw waaw. di léegi daa bu ma ñëw mën ma lottalal gàtt bi. Hmm, hmm, ma lottal gàtt bi commencé fees. ma hmm. xamal woon comment fees booba maay fees. mu toog ci pili ci njoowaan bi njoowaan bi mu dewul fii ndaw si ni dañ ci paanu këriñ bi sëñ bi du ko xool daa mu ne ko rendal ci këriñ bi wàññi këriñ bi lépp fay ko xaalis.

danoo danoo dem foo xam ni man dama faa soxla yiw ndax ñi ma àndal daa bari kon port bu ma jàpp ne boo ci dugalee sa loxo dara génn ca loo dencal gaa yi danaa ko jéem loolu laa bëgg a def waaye lu ma bëggal saabu laa leen bëggal moo tax ma yéen ñii ma déggal moytu leen tooñ gis nga booy def lu baax te doo tooñ kenn mën laa tee jariñ waaye def lu bon rek kenn mën laa kenn laa jariñ wala ne wax naa la ko sukkal ci kanam yàlla iblis mii iblis sëñ bi sëñ bi kenn rawu ko kenn magu ko moo ku bari xam-xam la te ak màgget la nag ci alkool mujj waa kër sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou nga xam ne lu mu laal mu baax bi fi sëñ Saliou jógee am na fi bàyyi ko ñëw fii loolu tax defaruñu foofa parce que nekkuñu woon ci lañ war xam ngeen leen fii lañ daan toog maa may jabar wutal leen fu ñu ne keroog ba ñëwee ni kër sëñ Sall dama ko ne man sëñ Sall lay jàppe waaye xam naa ne boo newoon ci la a ne doo fi ñëw sëñ Fallou borom kun gars yi na mu am na ñu tekkiwul dara nag am na jëfe-jëf yi mooy tax a jariñu sëñ Saliou Touré na ko wax maag Baye Cheikh Thioune mi santal sëñ Saliou mu ni santuma tan tudde ko ko maa ngi toog ñoo ngi toog ñëpp tiit ndax nekk représentant ñu tudd la sëñ mu lew la tudd la ba pare nga am li nga am benn waaye daan ne ko war ngaa sant sa sëñ mu ni santuma ko de ñëpp ni cel man maa ko ne ah sëñ bi boo ñu yeewul de gars yi bu ñu jógee fii waaw mu ne mu ne mu ne fa ma nekkoon ca daara ji nekkuma woon man dong de ñu bari laa fa ndekkandoloon sëñ bi di ma sant may jëfee mu sant ñee si la ma doon jëf te ma koy sant moo mel nii jëf ja jëf jë jëf ja la gërëm alaaxira mii jëfu fi jariñ nit kanam yàlla jëfu fay jariñ nit kanam rasulullah jëfu fay jariñ nit sëñ Tuubaa jëfu fay jariñ nit waaye du waxi keseek tiriande tiriande alak nit maa leen ko wax fii nag ku gis lu gën a wér li may wax demal jëli ko mm, xam nga dara gënul métti sëñ bi yor nit mun dalaa dénk boppam mu jóge ci yow te baaxut ak a soo sañoon fu mu dem nekk fi sa représentant boo xam ni ñëpp da lay bëgg a gis fii ne ko bon kenn bëgg koo yor moo tax lay metti sëñ xalif daaru Muxti bi toog moom laa déggoon mu ne mu ne dara mu ni mu ne dara gën te métti yor njaboot te mënoo koo digal nde maam Thierno ko xoon maam Thierno Darou Marnane waaw yor njaboot goo xam ne mënoo ko digal mu def mënoo ko tere mu bàyyi nee lu ko gën a métti ci fi nga bëgg mu jëm mënu mënu ko faa jëmale te foo bañ mu jëm fa fa lay jëm te loolu mooy mooy mooy mbokki taalibe yi ci biir kër sëñ si am na ñoo xamante ne bu sëñ waxee ba noppi day yëlëb seen nopp mu jàll waaye ña koy jëfe neex nañ sëñ bi de ah walay talib rek fo xamne numu soppi serignum nuko rawle ko serignum soppi parce que dañoo dañoo jaxase bagage bam ba da ngay da ngay mujjee doon sëñ bi sëñ bi don la yow say ma ko waxoon nañuy bala nga ma soxla ma far la soxla Cheikh Samba Diarra kon sëñ Touba nañuy dajé dajé dajé dajé dajé defal ma mbàkke bala nga ma soxla ma far la soxla foo jëm ma jëm fa fu ma jëm nga jëm fa dañoo dem ba nekk benn ah waaw waaye waaye nekk bokk tali boo xam te ni saa yu sëñ bi xëyee am leetar bu laaxan te ku ñëw yow lay laaxan xam naa bëggoo sëñ bi de waaye sëñ bi leen bañ la nag waxal ci diw waxal ci diw waxal ci diw diw jeex rek yow musiba baba ko nga yàlla nañ ci yàlla musal nangeen sax ci tudd yàlla tey jéggulu yàlla tey ñaan yàlla te ragal yàlla te bëgg yàlla lii daal laa leen digal kon loolu mooy waxtaan wi keroog maa ngi leen jox laa ilaha illallah fomp xol yi rek wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in xadir junni waaw moom laa waxoon nañ ko nañ ko nañ ko dàbbaliwaat simin bi koy jàng ak ñetti téeméer ak ñeent fukk arat boobu boo bindee sams sams wa samsu wa duhaaha maa ngi wat ci jant bi yàlla koy wax de bu bu bu dëppee projecteur yi àdduna leer gi jant bi ne daññi daañaare ci digg bëccëg àdduna bépp nag benn jant bee koy leeral de Amérique Asie Afrique Europe wadduhaaha suñ borom nee na foofu lay waxee siru bii boo koy liggéey foofu nga ko foofu nga koy nga koy branché jantub digg njoloor ku bañ nga tiim ko bu mu nekk ci àdduna bi nga ne boo ko dee liggéey Ousseynou nga di ko def benn waaye ne sewet def ko mënta fexe ba doo ko yilif ëpp ko leeruk suñu borom ëpp ko tuyaaba suñu borom ndax jëkk ko tàbbi àjjana ëllëg wa samsi wa duhaaha والخمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها سمسم فيرخ 1340 ها 1340 1 ل 3 ak 4 لا لا لا لا لا لا لا 4 3 1 1 3 4 8 la lay jox 8 c'est mooy dënnu rasulullah alayhi salaatu wasalaam mu hmm? ha mooy chiffre 8 bi 8 boobu boo dee li wax ndax mu kele bastu moom lay yox hmm? kéemaan la kon dañ koy saxal noonu di ko liggéey rek walla it dama ko santaane fii ñu teg ci quatre jours benn femme ca Amérique maam jaarale la tudd moo xëy gis mu bàyyi vocal sama téléphone nee man dama koo def ba noppi tëdd gént génn àdduna génn génn monde bi nu yéegal ba ma weesu asamaan yi juróom-ñaar def ma ci benn avion boo xam ne xaw nu mu toll waaye jant bi lañ fop teg ko sama loxo jant bi lañ fop teg ko ci loxoom nee lañ ko wekki indi tegal ko ak yu bare bare yoo xam ne ko wax mu ma sëñ bi loolu lu mu doon ma la a 3340 lu jar a bàyyi xel yenn saa yi may wax publiquement du ma ñemee dugg ci kot moo tax ba ne bay dugg ci caméra damay damay fee ceppeelu na rek génn waaye daal li ma mën a xam mooy boo bëggee bari alal ndim boobu dee ko def soo bëggee bari bayre Muhammad lim boobu doo ko def soo bëggee maanaam sag maas kenn du la ci dimbali nga xam ni bagn bu lay ree du sax ci gemmiñ boy liggéey li waaw yalla xam nako xam nga xam nga xam nga xam nga aljanna am na am ci ñenn ñi la wax bayyi ba faat dok fa dem loolu du ndam ci ñom da ngay dem visiter sa appartement del si waat toog di xaar faatu hmm, loolu fa neexul nga sansé photo yi ah sens yi lii te moom mii da koy def moom da ngay dem ba aljanna yi ni yàlla suñu borom fii nañ ko sensé day si ne xojju fi di lekk ceeb ci gaay yàlla xam na ko ah te loolu laa bëgg ci yéen yéen ñëpp dama bëgg balaa balaa kenn faatu dem visité këram te te tudd tudd yàllaa koy maye tudd yàllaa koy maye. kon simin bi ñu dég malaat na ko ñëpp sikar junni ak ñett téeméer ak ñeen fukk ku ko mën a def chaque jour nga def ko su fekkente ni dafa jafe ci yow ni ma waxoon keroog ñaat laa waxoon boo ko mënul hmm? boo ko boolee ñett yi moo doon doon wala wala boo ko divisé boo ko divisé par 7 waa kay waaw 9000 waaw 900 9300 Mm-hmm. neuf trois waaw du ma la joxoon we bi ma ko bi ma ko séddalee <laughs> <laughs> tur yi ban moo ci jàpp ñaar fukk tur yàlla yi waaw kay benn dong ko ci jàpp muy waduudu mooy jàpp ñaar fukk xam nga waduudu mooy Muhammad sallallahu alayhi wa waaw gi bu ko jàppee waaw jàppee ko miim deel gi du deel hayin la beneen waaw bi bu ko jàppee waaw jàppee ko miim deel gële waduudu muy muy deel daal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi seetlu ko waaw waduud mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam déggoo ñu Abdul Waduud mooy we yooyu da ngay da ngay da fekk yonent bi fi mu nekk salaam sam doo ko poñe waaye ñaar loxo nga koy jox ko ci loxo yi ba mu sës ci yow nga taf ko sa soo ko defee booba nuurul ala nuur lay nekk lumière c'est lumière moo tax ñuy liggéey bàyyi rek bu ñu ko xamoon sama gars yi nga xam ne ay tiktokeur lañu ba ko kenn dugal ci tiktok bi xana xamal wado wado ci gëna gaaw bo bëgge saf nit ñi jankati la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama la koy may yow 20 fois liggé ko ko rek 20 fois may na ngay koy ubbi waaw gi waaw ñaari waaw ci rek lañu ubbi ba waaw bu ne nga dugal ci bay xasida hmm? wutal lem def ko ci xam nga lem daa neex bisu alxames wala altine nga xool ba noppi na yow di ko sikkar rek boo ñëwee ñu tudd la boo ñëwul ñu hmm? moo tax me na li ma ci mën xam rek mooy yonent bi la sallallahu alayhi wasallam waaw yonent bi la sallallahu alayhi wasallam la ci des nag yaay liggéey ba gisal ko sa bopp waaw maanaam quarante bi moo lay yóbbu ci ICS yëpp pour wax la benn affaire rek wala il asim man dem naa Màkka te dem ma Màkka ci saayir ba may de Màkka mbuur la mbuur laa jóge ci 11 novembre maa ko liggéey waxtu takkusaan teg sama nga ganaay suun ci saase alayhi salaatu wasalaam yooni yooni délégation yu jël ma walay defal ma feles boo xam ni musuma gis auto yu mel nonu ci reey ak gaway ñett la bu rouge bu noir ak blanc ñu def ma ci blanc bi man nek ci digg bi 7 secondes lañ daw digënté mbour ak makka 7 secondes billahi gis nga bi ma ne gaa bi ëpp nag bi ñu droité ma fekk aleyhi salaatu toog mi nga takk benn collier bu ngand xam nga bu dee ci ahlu sariya yi dañuy araamal seen man ma ne ko waaw lii nag non dama dama ñu fekk fi mu sóonu benn garabu sexaw bu mag mu nii mais bi ñu dama ñëw ba juf ko mu raf ma ma ragal bëgg daw ni waa man noonu naa yentu dafa faatu te mo ngi mi ngi mi ngi mi ngi yëngutu fekk dama ko fété pen ma daw may wal gramu na taxawal ma tax mun ma boo ñi wute féete fii kaay féete ma fii comme dama leen nga ñaan mënu ko rek ma ñaanal yow ma ma yow comme ñi mu woon ñaan kay ma ñaanal la <laughs> ñaari sahaba mi mag yoyu ñoma do dox ginaaw ki kii ni ma ni ma di ma diri ma melni ku ragal ni may xëcc ba ñew ni sukk ci kanam mu téye sama loxo bi jàngale ikhlas lu ma waxon rek ma koy gis xaji guma dem penku aw ma sax lu fu yob hmm mi première fois bu bokk yu mujjii ba ngay dem ba jóg ko man li jaaxal rasulullah man ma ko collier bi nga tak nak man ma du collier de ismul al ahsan bi ngay liggéey mo ne sama baat tur bi ngay sikkar gisoo ni nii ma gis ñu bind ko ci tur bobu may wax non ya hmm? tur lool doyna yeb <laughs> waaw yaa tur boobu rek jàpp nañ ci loolu boo bëggee gaaw am yàlla si boo bëggee egg ci yàlla si boo bëggee say bàkkaar dañ si soo bëggee am am am si karal ah waaw leen ko 1340 bi na sax laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir xam nga Ismaïla Sam man maa man maa maa ko jëlee fële dugal ko ci biir 1340 bi man dama mën a créer de bàyyiwu ko fa mu nekkoon maa ko fa déplacé dugal ko nag foo xam ne foofu moom waaw. bisimilah. na yàlla defal taw feexe suba. nu nu ngu ñaan. yàlla na yàlla defal leen tawféex yéen ñëpp may leen may leen xéewal yu bari waa réew meeg bitim réew nag laa wax mosal leen ci alkandeeg musiba may leen àdduna ba ngeen sant yàlla mu may leen laaxira waaye am ba am jeex am yàlla ci gën yàlla nañu am yàlla suñu borom ah bi jaay rasul alayhi salaatu wasalaam allahuma inna nasaluka min kulli hammin farjan wa min kulli deexin maxraja wa min kulli husrin yusran wa min kulli faisatin sitra وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين محمد